sëriñ bi daal sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéenee nañ ko fas yéenee liggéey liggéey. ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te di ko ñaanal sëriñ Modou Amdi Mbène di ko ñaanal kilifa yëpp di nuyu sëñ Ibrahima Dieng nuyu sëriñ Babacar. sëriñ Xaadim Ndiaye ci waxtaan wu am solo yu ko fekk sëriñ Babacar Ka ni ñu àndal ak sëriñ Mor Dieng Nourou Darayni ñu yendu fële ci kër sëñ Touba sëñ Ibrahima mi daje nañ fa ñu doon def assemblée générale bu Kanzul Muhtadin muy journée xasaayit doon waxtaane bi weesu ak fi ñu war a jëm xam na li olof di wax rek ku sañ te bañ sañ nangu waaye daara ji raflewul ay boroomi xam-xam macha allah ñuy jëfe seen xam-xam te bu ñu waxee rek euh, wax lu nit mën a jariñoo àddina ak alaaxira bokk na ci fi ñu fekk sëñ xaadim ci waxtaan woowu fàttali aslëf ci tund woowu di làmbaay ak mag ñi ko seqoon tañ leen yàgg xam ci pas-pas ci bëgg sëñ Tuubaa lool ak gëm ko ci jamono boo xam ni gëm ko jafe na ndax euh, boo moytul daañ la boom daañ jël sa bakkan daañ àgg ci tuur sa deret ñoom boobu lañu toppoon Sëñ Tuubaa gëm ko lool kon nag su ngeen amee ay maam yu baax yu mel noonu yu yàggee sonne noonu ci yoon yi dara warul leen rek lu dul yokk laxasaay ak pas-pas roy ci jéegoy maam yooyu ndax baay bu baax ak maam yu baax ak famille bu baax baax na baax na lool ndax olof yi dañ koy misaale nii tos la te tool moom bu la gën a baax suuf rek euh, am jiw bu baax ku la ko gën le moo la moo lay gën le kon am ngeen jiw yu baax te mooy seen maam yooyu daayira bi itam gannaaw dañ cee teewloon keroog kër soxna Oulimata Ndiir di suñu yaay ju baax joo xam ne bokk kuréelu Sarsara yàlla dogal ñu xamante woon bu yàgg Serigne Babacar kay fàttali ma ndax bi may ñëw dama noom gannaaw nee naa waaw te boo nee waaw rek bu la dara tënkul war nga ko mottali ma ne woon naa ñëw waaye du jël kàddu gi ndax léeg-léeg sax dem ci mbooloo di déglu da lay gënal ndax déglu dafa lay perfectionne bu baax déglu dafa lay dolli yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am bés mu wax Abdullah ibnu Mas'ud ni ko jàngal ma alxuraan mu dégg ndax Abdullah ibnu Mas'ud ku neexoon baat la te mën alxuraan yonent bi ne ko jàngal ma alxuraan mu dégg mu ne ko ah xanaa du ci yow lañ ko wàccee mu ne ko waa dama bëgg nag nga jàng sa làmmiñu bopp mu déglu ci sama nopp bopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni alxuraan ni ko alxuraan misaale bu musaana wàcc ci moom day mel ni benn mayotéphone boo xam ni dafay enregistré lépp moo taxoon yàlla waxoon ko ne bul sonn ci mokkal gi laa tuharrik bihi lisaanaka li ta'jala bi xam boobu daan sonn pour mokkal ko mu ne ko jaru ko jaru ko bàyyil rek bu ko jibril wàccee ba ba pare daa ñu def lépp ci sa dënn doo ci am benn coono ndax message bi ni mu ko doon dikkee façon yu wuute la daana ko dikkee sax ci façon boo xam ni day mel ni ñaari weñ lu ñuy fëggat la ci noppam daana ko dikkee ci façon son bu nekk kon euh, loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam defoon sant ko Abdullah ibnu Mas'ud léeg-léeg moo tax ku xam dara ci ñun boo demee ci jataay déglu lay gënal ndax déglu da nga ci nafare da nga ci jànge da nga ci sax déggee loo xam ni ah, xamoon nga ko waaye ni ñu ko nettalee da nga ci am dégg-dégg bu yees oto biñ ñëwee fii wax dëgg yàlla sëñ Xaadim li mu wax dolleeku nañ ci tund woowu ndax ñu dañuy dégg rek pencum làmbaay te noonu ko sëñ Moussa Ka leerale dem penk soow fépp mel ni làmbaay Cheikh Bamba ñaan ci barkeb jiiri na yàlla may caafe ku li jiiri loolu bu ko leer woon nii duñ ko xam nga xam ne kon mel ne ni capital la woon ci capitalu buur yi kon loolu te buur yi xam ngeen ni seen capital day neex day xumb te te dañuy bëri dañuy bëri mbooloo day ubbeeku kon loolu beneen njàngat la ci waaye mag ñi gëmoon Sëñ Tuubaa moom foofu ca làmbaay te ñun ñëpp ñu jàng ko xam nañ ni am nañu seen wàccuwaay bopp maa ngi sax ne ko ndax ñoom jotoon nañoo dem Mauritanie te loolu ñun ñëpp ñoo ci bokk gëstu ndax Sëñ Tuubaa bari na ñu jógee fii ci mag ñi dem fekk ko gànnaar seen pas-pas àggoon na àggoon na foofu nga xam ni euh, dimanche bi passé laa jógee Mauritanie demoon dëkk bu ñu wax xomaak jóge fa dem Jararie jóge fa dem Sarsara jóge fa dem fu ñu wax bërëng mooy fi Sëñ Tuubaa jullee ci ci bi mu jegee dex gi ngir topp jeexiti Sëñ Tuubaa yooyu nga xam ni euh, naar yi ni ñu gëmee Sëñ Tuubaa ak ni ñu ko bëggee da nga naan sax ñun ndax xawuñoo des ndax benn naar nee na day Sëñ am na fii lu mu amul Sénégal ma ne ko lu mu mun a fii ñëpp d'accord ci moom kenn du ko déngat ne ma ñun am nañu ay sëriñ gëm nañu leen bëgg nañu leen waaye gëm nañu li yàlla may seen sëriñ si Sëñ Tuubaa may ko sax suñuy sëriñ loolu moom ak ak gore rek moo tax ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ah dañuy daaneel rek ci alhamdulilah bil alamin daje woon nañu ñu ne danañu ñëw yàlla mottal ñu ba ñu ñëw kon loolu mat na sëkk sëñ Babacar jërëjëf ah, lu ci juum rek ngeen mottali ko asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu. sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey